Denis Ndour ñu ngi lay nuyu. Ah, waa yow yaay vice président Ligue sénégalaise des droits moom tey président ci conseil des ministres mm. jël na ab dogal bi nga xam ne ah, ci ni mu gën a gaawee dina amnistie képp ki nga xam ne da nga ñàkkoon ce droit. Ah, boobule amnistie nag concerné na ki di Karim Wade ak xalifa Sall noo jàngatee ndogalu président. waaw loolu ni ñu ko jàngatee d'abord dañuy rafetlu principe bi parce que ñun toujours ci ni ñuy doxee ci euh, kuréel ak ak yelleef doomu aadama euh, maanaam mbirum yoon la ñu xool maanaam le principe du droit euh, jàpp nañu ne ab procès bu ñu mën bu mu mën ci doon su fekkente procès bi dañ ko attaqué sur la sur la procédure ba nga xamante ne kuréel yi gën a mag ci niveau international maanaam Euh, kuréelu yu mel ni Nations Unies wala Cour de justice de la CEDEAO dañuy jàpp ne loolu mooy wane ne am na gàcc-gàcc ci ñi nga xam ne ñoom lañ doxalee ñi nga xam ne moom la ñu jàpp ba ba condamné ko may fàttali ne aussi nit bi ñu ne dafa perte euh, droit civil et politique am loolu tax aussi juge daf war a prononcé ah, bu ko prononcé wu nag day mel ni euh, dañuy bàyyi nit ki mu nekk ci mu tàggatoo maanaam xamul moom ci lan la ne. ba pare buñ ko permettre mu nekk candidat buñ ko permettre mu voté loolu dama yaakaar ne li ñu war a réparé na du ñu xool nag xëy na Karim Wade ak Khalifa Sall ñoo gën a fës ah, nga xamante ne ay way ay jomonte waaye ñun parce que gis nañ ñaari euh, procès yooyu naka euh, euh, la ba pare aussi tëdd Euh, sànq ñu ngi koy wax ci nasaraan mën a yaakaar ne mbirum impunité la mais man ñun dañ ko léeri mbirum impunité impunité mooy ki nga xamante ne dafa def lépp xam ne daa def jugé wuñ ko ñu bàyyi ko dem yoonam ñu épingle ko ci ay rapport euh, d' inspection comme ay cour des comptes euh, et mm-hmm. ñu gis ñëpp xam ne ne kii diw mi moo def nangam waaye kenn poursuivre kooku la wax impunité wala boog moo xam ne koo xam ne dañ ko jàpp flagrant délit mu def loo xam ne ni këtt ni jom la mu dem tribunal ñu jox ko liberté provisoire ba pare ñu di fenn ci biir liberté provisoire boobu lay demee ba mel ni dara xew loolu la ñuy wax impunité wala boog mu nekk ay njiitu réew yoo xamante ne dañuy def naka suñu loolu génn seen dëkk dem feneen te kenn dara dara dara fekku leen ci loolu moo tax ñu naan infinité bi loolu dañ koy xeex cas bii nag ñun gisewuñ ko loolu li gis mooy dañu xool ci principe du droit maanaam tey bu ñu demee ba nit dañ ko jël ci casier judiciaire am euh, ne ñàkk na civil euh, ak ak yelleef ci mbirum euh, civil ak politique juge daf ko war a notifier tant que juge notifié ko dañu jàpp ne ah nit ki dañ ko dañ ko dañ ko dañuy def benn gàllankoor ci bopp ci ndodam ba nga xam ne bu ñu ko mayee mu mu jouir mhm. li nga xamante ne loolu yoon moo ko may en tant que doomu aadama may fàttali ne euh, am na benn pacte bu ñuy wax euh, pacte international relatif aux droits civils et politiques di fàttali rek ci xëtam bu jiitu que ne doomu aadama bi dafa war a pour ñu jàpp ne doomu aadama la ci liberté dafa war a jouir droit civil ak politique boobu ñuy wax ba moom du benn crainte di naqarlu maanaam bu am fu mu tiitaanee ba nga xam ne jàpp na ne man sax aw ma sañ-sañu def lii mm-hmm. wala man aw ma sañ-sañ sax sama waa dëkk voteel ma wala ma am sañ-sañu wax waa dëkk bi damaa bëgg a jiite réew wala damaa bëgg a jiite ab réew wala damaa bëgg donc jàpp nañ daal pour man contexte bi waral lii ñaar lañ ko mën a gis maanaam tey dañuy dem ci ay jomante yi yoo xamante ne jëloon am solo la. muy deux mille vingt quatre waaye jàpp naa ne depuis élection locale yi jëm ci élection législative ak événement mars yi tension politique ak sociale bi am ci dëkk bi ba léegi wàccagul maanaam nit ñi ñu ngi xoolante en chien de faïence maanaam ku nekk yaa ngi am nga fi ngay xaar sa ko a mm-hmm. njiitu réew yow yaa mën a teggi en tout cas euh, euh, suspicion de de de de voilà de manque de confiance boobu ba nga xamante ni nit ñi dinañ dal parce que damay jàpp ne li ci gën a am solo ci lii mooy lan jàmm am ci réew mi ndax réew mi su amulee jàmm lépp lu ñu mën ci ñaxtu lépp lu ñu mën ci def lépp lu ñu mën ci revendiquer lépp lu mën ci def te jàmm amul daanaka amuñu dara mm-hmm. donc ma yaakaar ne su fekkee ne président li muy def nii lim ci jublu mooy tax nit ñi mën a am seen ak ak seen yelleef ba jàmm dellu si en tout cas loolu lu ñuy rafetlu la. Mhm. waaye nag dugg ñu ci mbirum politique politicien maanaam ay deal politique dañ ko def pour arranger diw wala arranger ñu ci ci li ñu jàpp rek mooy le principe du droit ah, nañ ne procès dafa war bu fekkee équitable am nañ sañ-sañ ne procès bi war nañ ko defaraat comme dañu ne nii dañ def amnistie wala def grâce pour que ñi nit ñi xam ne ah kii xëy dañ ko tooñ wala xëy na nañ ko doon toppee lañu xalaatoon noonu la demee demewul noonu ñu bàyyi ko mu am àq ak yelleefam waaye ñu bañ a wax dëgg yàlla gàllankoor la boo xam ne moom xamul suñu féete te saa yu mujjee ñu ne ko mënoon waaw. Euh, est-ce que Karim Wade ak Khalifa Sall ñoo bokk situation ba ñu war leen mën a gracier. waaw bokkuñu situation parce que ku nekk ak li ngay toppee du benn mm-hmm. ah, ah, procès yow si ni mu déroulé du benn waaye jàpp nañ ñoom ñaar yëpp war nañu mën a bénéficier ci ah, privilège boobu citoyen sénégalais lañu donc war nañu mën a am privilège bu nu mel waaye li fàttali mooy même buñ ko di am bu mu doon loo xamante ne dañ ko basé ci mbirum politique politicienne maanaam loo xam ne dañ ko waxtaane ci biir léegi pour rek la ne woon euh, euh, yi ci li nga xam ci jublu man li ma jàpp daal mooy ne contexte bii ñu toll nii lu war la pour que jàmm dellu si pour que tension politique ak sociale bi mën a wàññeeku pour pour ñu permettre ñu dal mën a liggéey euh, ku nekk mën a wax sa bopp ne amuloo looy xalaat amuloo looy tiit mm-hmm. Euh, tey bu ñu leen euh, amnistier moom mi di Khalifa Sall ak Karim Wade est du favoriser li nga xam ni moo di impunité parce que dara du leen toppee waaw loolu xaw naa ko dund sànq ci sama wax dama ne euh, ki ñuy wax impunité mooy ki xam ne amul sax procès tey booy xool ci rapport yi de contrôle yi muy OFNAC muy dañuy jàpp ne souvent bëri dañ leen di tiñal te du mujj fenn parce que du am benn process ñooñu lañ gën a jàpp ne ñooñu ñoo tëdd ci intimité rawatina ñi nga xamante ne dañ leen di jàpp flagrant délit ñu dem ba condamné leen ñu ne léegi dañ leen jox benn liberté provisoire ci liberté provisoire boobu foofu la ñuy jaar ba ba ba leen may kenn dootul waxati ci ñoom ñu nekkaat seen seen dund tranquillement pour man loolu laa jàpp ne loolu mooy impunité wala boobu président yi parce que président lañu kenn mënalu leen dara ñu def leen neex seen di dem ci beneen réew làq bi foofu toog loolu impunité loolu da ngaa ah, man ci def na dara fekk ko ci man da man tam dinaa ko def waaye boo jëlee ñaari kaaw ñaari kaay yi ñoom ñaar ku ci ne tëdd nga kasu def na ab diir xëy na li nga xam ne mooy suñu kumpa mooy taawu Karim parce que kenn xamul ci yan condition lañ ko exilé ba mu dem Qatar ah loolu moom ump na Sénégalais yëpp waaye li ma mën a jàpp daal mooy euh, pour bu question impunité mais euh, contexte yi moo laaj ñu ñu war a euh, en tout cas delloo nañu seen ak ak seen yelleef bi ñu gisee ne ci ci déroulement procédure yi seen ak ak seen yelleef jàngati nañ ko ndaxte kuréel yu mag yu mel ni Nations Unies ak cour de justice de la CEDEAO dañ ko dëggal ci say décision kon nag ñun comme principe droit moo ñu tax a ci angle boobu lañ koy gisee. Mhm. d'accord euh, tey euh, lu tax nga jàpp ni président choisir euh, période bi justement ngir mu amnistie ndax ñu nga xam ne ku ne xam na ñu ngi dem ci élection présidentielle. waa li ñuy wax mooy naan on n'est pas dans le secret des <laughs> wax waaye maanaam nekkuñu ci biir xolu xelu président ba xam ne tax ñu def lu ni mel waaye suñu njort bu rafet mooy que jàpp ne bi fu mu toll nii ak ñu mën ko voilà dalal xel nit ñi dama jàpp ne bu ñu dem ci jogante yu am solo yu mel ni deux mille vingt quatre war ñu nekk ci situation boo xamante ay pëccëxoo ay buuxante kii day bokk par force kii du bokk par force ba mu nar a andi ay jàmbaar loo kii violence je pense que moom mi nga xam ne mooy féete ñëpp kaw a mën a am ci ay décision bu ñu mel parce que lii day wane ne ah man jàmm mm-hmm. jàmm nag ku koy ci fekk si da ko jàmm mën a mën a sax mm-hmm. waaye encore une fois lépp lu ci am ci ay ay euh, maanaam ay jalgati politique wala ay loo xam ne lëndëm lëndëm politique la ñun dugguñu ci loolu ñun dañuy dañuy yem rek ci principe du droit. Mhm. Mhm. mais euh, ñu bëri tey ñu ngi jàpp ni euh, bu leen amnistier dafa bëgg rek diviser li nga xam ne moo di opposition bi pour wàññi doole euh, man Sonko. waaw loolu aussi analyse politique la. xëy na ñi nga xamante ne ñoom la ñoom la indoon te nekk ci joŋante bi. xëy na ñoom séntu nañ loolu wala boog am nañ seen stratégie bopp yoo xamante ne dinañ xam naka la ñuy seen bopp soit dañuy booloo wala ku ne am nga sa stratégie bopp man daal li ma jàpp mooy bépp Sénégalais boo xam ne motani motani na pour jiite réew mi war nañ ko mën a bàyyi mu tenter chance am parce que euh, Sénégalais yi ñoom ñoo am le dernier mot ñoom ñoo xam ci ñuy tànn waaye ci du caagane parce que. Euh, opposition dañ koy wàññi wala dañ koy yokk opposition ku nekk am nga sa agenda am nga say stratégie xam nga ni nga war a doxalee bu fekkee ni nga bëgg Sénégalais yi ah, en tout cas jox la seen kàddu mm. loolu moom ñoom ñoo xam daal lu ñu tojee seen bopp jinax waaye mm. li ñu mën a jàpp mooy lépp lu ñu mën a def pour askan wi jàpp ne amul benn parparlo amul benn loo xamante ne ñi dañu leen a coincé ba mënuñoo jot laaj ci réew mi loolu moo war a tax ñu xam ne ñëpp daal ñu Sénégalais yi ah droit nous euh, euh, égal en en droit et en dignité maanaam ñoo bokk ak ak suñu suñu euh, nguur bi ko war a saytu la ko saytoo ba nga xam ne kenn du wax ne ah bési diw la ko jàpp ko bési diw. Doy Ndour ñu ngi lay gërëm bu baax. maa